bu baax man la Momadou Ndoye Bane seen soppe seen xarit inspecteur Ndoye Bane waaw lu am la accident bi ñuy ngeen di dégg noonu lu am la ñu woon leen Dakar doon ñëw fii ci Matam ak li ko wër pour def suñu liggéey normalement comme ni ngeen ko doon gisee ñu koy def ci yeneen régions yi patrouille ànd ak police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 mais yàlla dogal na ni ñun ñi ci nekkoon di quatre personnes wax dëgg yàlla dara jotuñu jotu ñoom ñëpp ñu ngi fii ak man ci benn hôtel de la place ñu hôpital kenn hospitalisé wuñu ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax a baax dara jotuñu may remercier autorités yi ci dëkk bi di ko commencé ci ministre de l'intérieur au commandant de la gendarmerie nationale directeur police ak directeur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 respecteurs Ndoye Bane à bientôt